comme ni nga ko xamee FIARA comme ni mu tudd foire ak baykat sàmmkat nappkat la ki ko organisé mooy kuréelu baykat sàmmkat nappkat bi ñu tuddee CNCR. ak kuréel euh, kuréelu mooy économique bi muy ASPRODEP. donc ñoom depuis 1999 ñooy organiser FIARA di ko organiser nag ak ñi nga xam ni ñooy seen naataango yi nga xam ne ñoo nekk Afrique de l'Ouest ñu tuddee ko ROPA réseau organisation paysanne et producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest ku yàgg ma sa ñëw FIARA di nga leen gis kooku pays yi UEMOA yëpp ñoom ñu ngi ci donc ils sont représentés ci réseau boobu kon waaw mooy toog ci réew mi liggéey fi tekki fi mais loolu pour mu mun nekk il faut que structure yi nga xam ni ñooy financer xale yi euh, ñu xale yi mën a yegsi ci ñoom ci kaw loolu ñun dañu xalaat ni dafa am benn kër goo xam ni dinañ ko def ren ci biir Fiara kër googu moom lañ tuddee village boo xam ni day regrouper structure yi nga xam dañuy financer jeunes pour que xale yi bu ñëwee ci biir Fiara ñu déglu leen conseiller leen si orienter leen loolu mooy innovation majeure bi am donc danañ ko def nag ma profité ci kaw loolu ministère de l' agriculture ñu ngi koy gërëm di ko sant recevoir nañu bërki démb waxtaan nañu ci loolu te it dinañ ko matérialiser kon ni gars yi di mobiliser woo di dem SIA de Paris di dem feneen ak feneen ak feneen ci contribuable Sénégal ñun Sénégal bu xewlee ñun amatuñu Afrique il ñu gëm suñu bopp amatuñu lu ñuy wane bitim réew bitim réew moo ñu soxla ñun am nañu suuf am nañu jeunesse mais boo xoolee tey ñu ngi wax agro business est-ce que yow wala keneen ak keneen wala man ak keneen ñu ngi koy def mënuñu ko parce que amuñu koppar yi kon loolu nañ ko valoriser on a des produits qui sont vendables kon nañu appâter étranger yi ñu ñëw fii ci Sénégal indi machines yi indi koppar yi ñu exploiter suñu ay ressources suñu jeunesse liggéey mais boo liggéeyee boo amee bu la neexee nga aspirer nekk chef d'entreprise loolu mooy objectif bi. waaw loolu wax naa ko ci euh, tubaab damay wax ni d'accord ku mu neex nga ni da nga bëgg liggéey mais pour nga mën liggéey il faut nga am qualification professionnelle ci kaw loolu euh, am na structure yoo xam ni ñu ngi waxtaan ak ñoom dinañ nekk FIARA ay ONFP ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen pourquoi pas ay trois fpt yeneen ñëw ñu déglu xale yi nañu structure yooyu wàcce seen bopp. wàcce seen bopp mooy lan xale bi tey jii nii boo ko xeebee mënu koo xeeb mënu ko déglu déedéet xëy na sax réew mi àdduna moo soppiku léegi wala je sais pas quelle est l'orientation de ce nouveau projet la mi bu njëkk ces projets ont des antennes de proximité koo xam ne tey bu la neexee nga jógee sa kër dox benn cent mètres dem ci antenne bi toog waxtaan ak askan wi ñu déglu la déglu la orienté la voire même te donner des perspectives wala def benn joint ci van ci seet keneen koo xam ne tey yow li nga soxla bëgg na ko ñu def benn rapprochement mais bu ñu toogee ci immeuble yi toog ci bureau climatisé yi jël ak garde bi comme ni ko Karl Marx waxee woon tant que la bourgeoisie bureaucratique sera à la tête de ces pays la le développement ne sera jamais assuré il faut que ñu change de méthodologie président li mu war a def def na ko dégager na xaalis dégager na ay structure emploi des jeunes confier na ko ay personnes ressources ce sont ces personnes là qui doivent avoir la même vision que le chef de l'État et l'exploiter à bon escient et c'est ça qui fait défaut cette exploitation à bon escient la mooy def défaut kon ñoom ñi nga xam ni ñooy chef de projet yi nañu wàcce seen bopp wàcce ñi ñi nga xam ni ñooy seen ay levier yi nañu wàcce seen bopp accueillir jeunesse bi toog déglu leen conseiller leen mais koo xeep mënoo ko déglu c'est pas possible du tout donc bu fekkee ni bu ñu la woowee tu es inaccessible bu la nee rendez-vous nga ni je verrai mon calendrier par rapport à ma disponibilité mais attends tu ne peux à tout le monde yow mënoo mais am na ñeneen ñoo xam ne mën nañu répondre mën nañu déglu il faut que ñu décharger wu ci yenn mission yi jox ko des personnes de base ñu mën a déglu xale yi tey loolu dañ ko bëgg a matérialiser ci biir FIARA bi maa ngi ñaan une collaboration franche ñu nit am nañ ci rôle bu ñu joué ñun journaliste euh, yéen ñun organisateurs yi ak yéen journalistes yi ñu def benn jiwan ci van ci wa boo xam ni danañu permettre ñu fëgg par force buntu ñi nga xam ni suñu xaalis lañ ñora xaalis bi directeur de projet yi kenn moomu ko ci du ci poosu kenn suñu xaalis la ñun sénégalais yi kon on les oblige à répondre aux attentes de nos petits frères et aux attentes de cette jeunesse comment en travaillant en collaboration faire une synergie taper dénoncer voire même leur donner des perspectives et de nouvelles orientations